أجى قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى أجى قلبي من خيال قد سرى قلبي قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى بين هجى قلبي المصطفى طيف الكرى هدى قلبي قلبي قلبي قسرى وصفاني قد جفا طيف الكرى من يشف شفي وكسد هولا هولا هولا سير دمعي انكسار هجرا

العشان قد يرى قد قلبي قد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله السميع عليم الحمد لله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi diin wa radiyallahu an sheykhina wa sayyidina wa wasilatina ila rabbina abi abbas ahmad tijaani sharif radiyallahu taala anhu wa an jamii xulafaahi ridwanullahi alayhim ajmain wa nafaana allahu bi barakatihim amin mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen masawu coono yi di leen ndokkeel ci weer wu bi di shahru ramadan al mubarak eh, di leen ci dëwaniku eh, di jiital ci nuyoo bi sunu wayjur bi fi teew di sunu sëriñ di Seyd Abdou Aziz Sy Al Amin di bég lool ci bégal gi nga xam ne bégal na ko xadara Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy radiallahu taala anhu bégalaale ko xadara Seydi Hadji Malick yëpp radiallahu taala anhu bégalaa ko bégalaale ko ummatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp fa ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko masawu coono yi di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko wér ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gunge ñu ba mu yàggul lool lool lool fa tabaarakallaahu ah di di jaar ci moom nag di nuyu sunu wayjur bu tedd ba di xalifatu am di taaifati tijaniya di seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum fa tabaarakallaahu mi nga xam ne ñun ñëpp tey ay njabootam lañu te njabootam lañu mos a doon fa tabaaraka di ko ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla ni mu taarale xadara bi ak bi mu ñëwee ni mu toxale wàllu kër gi. ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko fi daal dool yàggal yàlla na ko fi yàlla dool wér fa tabaarakallaahu ah di nuyu eh, xadara bi yëpp nag ah, rawatina ki nga xam ni di suñ seen di Cheikh Ahmed Cheikh Seydi Mouhamadou ni Mansour mi nga xam ni tey moo fi wuutu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si radiallahu taala anhu ak sunu baay bu baax bii di sëñ Mansour si bu sunu maam Habib si radiallahu taala anhu bi nga xam ni tey bés bii moom lañ ko dippee di nuyu itam fa tabaarakallaahu Seydi Haaji Malick bu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha radiallahu taala anhu ak Seydi Abdou Aziz si ak sëñ Habib si ak seen rakk yëpp ñu leen nuyu di leen ziyaara di nuyu it fa tabarakallahu sunu goro di sëñ Daawuda si di nuyu itam sunu goro di sunu rakk di sëy di Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha si bu sunu paa bu sëñ Abdou Aziz si al yi ma àllanteel di euh, Mbay si Mansour moom itam mi ngi ci jataay bi ñegsi na léegi fa tabaarakallaahu di nuyu suñu suñu suñu mag di suñu ñi suñuy jaam di sëñ Dut Sall ak rakam bii teew di sëñ Alioune Sall fa tabaarakallaahu ak suñu rak suñu rakk maam Thierno Kane ak ñi nga xam ni itam ñoom la fu ñu nekk ñoom la ñoo fay taxaw taxawaayu si Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum fa tabaarakallaahu muy eh, Hadj Malick Cissé Jinge ak sëñ Samba Cissé mi nga xam ni fa tabaarakallaahu fu ñu teew suñu waajur baax suñu waajur bu baax bala fi liñ fi teewal eh, fa tabarakallahu waaye li mu leen digal mooy bu ngeen bërëb bu ngeen fekk fa jaboot seen xaaj maal topp leen seen ginnaaw ba tax na fa tabarakallahu ñëpp nag ñu moom moo fi teewal kër gi di sëriñ Abdou Aziz Al Amin représenté euh, usratul malikiya yëpp fa tabarakallahu eh, di nuyu itam soxna yu tedd yi nga xam ni fa tabarakallahu eh, ñoom itam ñoo couleur jotaay bi soxna Umu Xayri mi fi fa tabaarakallaahu ànd ak soxna maam Daba ànd ak suñu soxna yu baax yi eh, fa ñoom ñëpp ñu ngi fi teew ñu soxna Ayda soxna maam Kumba fa tabaarakallaahu soxna Ndey Jaara soxna Umu Kan soxna Ndey Awa soxna Pauline soxna Medina fa tabaarakallaahu ak suñu soxna soxna Awa Diop mi nga xam mooy soxna maam Ousmane fa tabaarakallaahu ah ñoo ñëw am nañ jotaay bi nag ànd teg suñu ay jigéen ak suñu mag eh, ak suñu tante yi nga xam ni ñoom itam fu ñu nekk ñu nekk suñu wet suñu tante Yacine Dieng fa tabaarakallaahu suñu jigéen soxna Ndeye Maram Kanit fa tabaarakallaahu mi ngi fi ak soxna Seynabou si mi nga xam ni moom mooy soxna Sidi Ahmed ah tey kay fa tabaarakallaahu moom fu yemoon sax neex wax yàlla <laughs> ah ak suñuy mag yi nga xam ni itam ah ñoom ak sëriñ bi ñoo yoroondoo ca ndar di mbokk di lépp di soxna Ramat Tall Ba ak soxna Binta Dia ñoo ñëpp fa tabarakallah ñuy ñëw teewal ci yëpp ak ñëpp daal ñëw nañu suñu doom di leen nuyu ziyaara bu baax a baax baax di nuyu itam fa tabarakallahu ah, waaw ñoom ñu mama léegi ngi fi du sekk ñu fa tabarakallahu ah, kon nag wax dëgg yàlla ñu doon sant bu baax si di am mbég lool ci bés bi nga xam ni la Cheikh Seydou Mouhamad Moussa daan wax radiyallahu taala anhu dafa mel ni moom moo xewaat ci bés bi rek ndax Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha dafa daan wax ni kër gi lu ñu sos ci dëgg lañ ko sos te lu ñu sos ci dëgg nag nee na njëlbeen nga dafay sew waaye mujj ga dafay réer daan na wax ni mbooloo dëgg ak mbooloo gudul dëgg duñu ñu mélanger mukk mbooloo dëgg dafay taxaw fële weex tàll mbooloo gudul dëgg dafay taxaw fële ñuul kukk fa tabaarakallaahu muy nag mbooloo dëgg njëlbeen nga dafay sew waaye mujj ga dafay rëy mbooloo gudul dëgg njëlbeen nga dafay rëy ñëpp ñu riir wut si ko ñu dem ba ci ñëpp ni li ay naxay mbaali ñëpp génn ci fa tabaarakallaahu li mu ci daan joxe misaal mi ko daan joxe ci gàmmu Tiwaawan daan la wax ni waaw tabaarakallaahu ah ñu ngi nuyu honorable député Soxna Awa Sow di nuyu on honorable député kooku moom ci ñun la bokk di sëñ Cheikh Omar Sy député di sunu di sunu goro itam fa tabaarakallaahu ah di ko nuyu di ko dalal ah, di nuyu imaamu koñ bi di suñ uh, imaam John imaam Baara John bi nga xam ne ci kët bi nga xam ni moom la def léegi ci wàllu eh, jumaa ji mu ni kon li mu doon joxe misaal ci wàllu mbooloo dëgg ah, mbooloo dëgg eh, fa tabaarakallaahu dana wax gàmmu Tiwaawan ci njëlbeenu xilaafa sëñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu mbooloo mi daa woon fees jàkk ji waaye mbir mi dem di dem ba daanaka mbooloo mi xajul ci Tiwaawan kon na barke boobu wàcc woon ci jamono Sëriñ Xaasim Maalik muy ndigalam mu taxawal ko ba yàlla mbir mi egg egg si fu mu egg si ci Tiwaawan ah ñu ngi ci am rafet njot di ñaan yàlla itam lii nga xam ni ci ndigal xadara bi jaar ko Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour mi mu jël ko ndigal ci ay woy juróom yu tedd yi fa tabarakallahu jaarale ko ci barke Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ak i woy juróom ak i eh, eh, fa tabarakallahu ak maama ak daraje Cheikh Seydina Tijaani ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Eh, ñaan yàlla mbir moomu yàlla na wàcc ci mbooloo mi tey ba na mu eh, xajatul ci Tiwaawan nañu dem ba conférence dootul xaj biir Faas yàlla nañu ko yàlla defal ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon na fa tabarakallahu di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di nuyu mbooleem xadara Seydi Hadji Malick nag ñoom ñëpp ngi fi teew mbooleem région yi tam wax dëgg yàlla ci wàllu xadara bi ñëpp a ngi fi teew union yëpp teew nañu jumelage yëpp teew nañu fa tabarakallahu ah, ngi fi bureau jumelage baa ngi fi fa tabaarakallaahu ak ñi nga xam ni ñoo mankank xadara bi yëpp ah, jarab Abdou Diop bu yéen ñi ngi fi fa tabaarakallaahu ak itam délégation sunu maam borom Touba xaadimu suru rasul radiyallaahu taala anhu ah nja am nañ njabootam yu yaatu yu fi yu takk bu fi teew tey ñëw te tabaarakallaahu taaral bés bi tey kon nag ñu leen di yàlla yàlla fay leen di ñaan yàlla yàlla yàlla dollu sutura si fa tabaarakallaahu ah di nuyu waa fas yëpp nag di leen sant di leen gërëm ah ndax it am na sunu wëllëre sunu xarit boo xam ne moo nekk fi yore pàkk bi fii di sëñ Basiru Diop moom itam am ko am taxawaay la ci bés bi fa tabaarakallaahu eh, ba tax na kon fa fa tabaarakallaahu nit soxna Ami Fall eh, moom yëf yi dafa xaw a dafa xaw a débordé eh, fa tabaarakallaahu kon nag ah, di nuyu waa fas yëpp di leen gërëm ndax yonent bi salaa salaam dafa wax ni. balaa ngaa tànn fa ngay dëkk na nga tànn ñi ngay dëkkal te yaakaar naa ni Cheikh Seydi Mouhamadou Moussa ni ko imam Baara Dione wax dégg yàlla moo ko booleeg waa Fass waa Fass xam ko teg moom ci loolu keroog bi yàlla dogalee ñuy toxal Fass fa tabaarakallaahu euh, fii yëpp ay barak la woon tabax yi ngeen gis fii yëpp ay barak la woon yàlla dogal ñuy dañuy toxal Fass. ñu yebal fi ay euh, camion ay ay GMI yu bari ñu encercler quartier bi ñu indi caterpillar yi ñu ñëw di toog si kër yi mu metti lool ci waa Fass ñu def délégation ñëw seet Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha radiyallahu taala anhu ñëw gis ko waxtaan ak moom ni ko si boo seetaanee dana ñaaw lool ndax ñu ñuy wër encercler ñu partout borom beere yu xonq yi ànd ak seen i arme ak seen i gànnaay ñu indi seen ay caterpillar te nar a daanu suñu kër nar ñoo toroxal ci bésu tey bii. wax a wax ba eggal Cheikh Seydou Mouhamed Cheikh Seydou Mouhamed sax ci waxam bi tedd ji ak gu tey ga ñu ne ah xam naa su ma sañoon de ngeen def liñ ñu leen wax boobu benn waa Fass mënu woon dégg boobu ndax boobu yëpp la ndëm na kenn du xëccoo moom mais incha allah mu ko nag fan ñu jëmee boobu Fass Mbao loolu dara amu fa amul ndox amul courant ab ab ganus la rek boo xam ne bi daara daara dara amu fa ñu bëgg ñu yóbbu foofu te xam ñu ni ñu fay demee. si Moussa ne incha allahu taala am naa yaakaar ni incha allahu taala di ngeen dem ba foofu gën a leen fi ngeen jóge waa Fass Mbao ñëw fii bi si Moussa génne àdduna def délégation ñëw fii mën nañu fekk ci kër gi ñu ne ma ñëw dañ ñëw bu feddle si kóllëre boobu murit yaag xaadir yaag ñëpp ànd ndax lu lépp luñ si Moussa waxoon keroog ci bés bu métti bésu Fass bu métti boobu la mu waxoon ne tey Fass Mbao teg na ci bëtam ba ba ba mu wis kon dañ ñëw pour njukkal si ko njukkal si kon ko fekk ñu fi ñu njukkal si njabootam fas yéen fas kóllëre suñu diggante ak yéen at mu jot ma jàppal la ma jàppal la ñu dañ bëgg a ziar si ma jàppal le premier janvier premier janvier jot ñu ñëw fii ñu ñëw ziar ba réussir lool ñun dañu bëgg ziar bi at mu jot ñu def ko man leen ah loolu nag aw ma sañ-sañu joxe ko mën naa leen jàppal bésu ziar bu nga ñëwee ngeen ziar si waaye joxe sar at mu jot na ko ku am sañ-sañam nekku fi ma nga ni may ni sa wax di daanoo rek sëñ Mansour téléphoné dama ci at mu bees mi ma ne ko ah si yow na nga fekkoon ñu yow de nga fekkoon ci yow la ñu nekkoon mu ne ma lan la ma ne ko fas Fass Mbao ngi nii wëllëre bi ñu amoon Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha radiyallahu taala anhu moo leen ñëw doon féddali si ak daal xam xamal ni daal am na ñu mbégte lool ndax lépp leen sëñ Moustapha waxoon neen di ngeen dem ba fi ngeen jëm gënal leen fi ngeen jóge yaakaar naa tey loolu egsi na te gis nañ ko ba mu wis ñu moo tax ñu waxoon ne ñoom dañu dañu doon def ziar si man leen la man awma sañ-sañ di joxe ziar ak mu jot ndax kooku sañ-sañam mi ngi mi ma nga ku am sañ-sañ bi ma nga jot nga téléphoné mu naa leen ci ndigal at mu na ngeen ñëw ziar si chaque premier janvier Fass Mbao dañu ñëw ziar si Fass fii ba tax na kon fa tabaarakallaahu ñu ngi sant bu baax di ñaan yàlla yàggal taxawaay bi dolli sutura si eh, fa tabaarakallaahu temps bi xaw na gudd di ñaan yàlla rek yàlla yàlla yàggal taxawaay bi conférence bi ni nga ko defee ren yàlla na yàlla may ñu teew ko déwén te ndax dàqal ñu ren bu déwén na mais ñaaw yàlla mel ni ren kon na fa tabaarakallaahu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. ah ci turu Pape Assane Sow bi nga xam ni mooy président Moustachidine Choubani ahli tariqati tijaaniya eh, fa tabaarakallaahu ak turu xadara Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha yëpp. góor yi asalaamaaleykum dañu am ñeewent si yow ndax gannaaw bi ma nuyoo ñëpp fépp fu Sidi Ahmed jaaroon. nuyoo maa nga fay jaaraat ni asalaamaaleykum te dangeen comprendre lu tax waaye dañu am ñëwent si pour ñaari yëf bu jëkk bi daf nga am ñaari xarit sa ay soppe ñëpp xam ni sa ay soppe lan yàlla yóbbu leen muy Seydou Wele di Barham Diop aw lam yaraw anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha wallahu yaxkumu laa muaqiba li xukmihi wa huwa sari'ul xisaab yàlla dafa ni may jàpp petu suuf di ko daggat ba mu jeex si aaxiru zaman ñu laaj boroom xam-xam yi lan mooy naqsul atraaf mu ni al ulamaa wal fuqahaa wa awliyaa'ullah waaye Seydina Abbas ni képp kuy def lu baax ci kaw suuf dugg nga ci aaya boobu te ñii fi jógee sa ay xarit noonu sa ay soppe noonu toog noonu ci àdduna bi ñëpp toog ñu ñu nañu nu mel ci yow kon nag ci barke weeru koor gi ñu ku lu wantu bi xayri di ñaan si barke weer wi yàlla nand leen si déggu Kawsara gàttandu leen si barsaku Cheikh ñu ñëwent la nag si direeku bi nga direeku ba ñëw fii te xam na ni mënoo si dara moo tax ñu gàttal nuyoo yi daanu gàttal suñu kàddu itam waaw demee woon nga bay wut koo jox mbir mi mu ñëw ngir ngànt kon nag duñ la fi téye lu yàgg waaw benn kàddu di la wax ni lii nga def waaw rëy bi njabootu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha rëy si yow ak rëy bi njabootu Seydi Aboubacar rëy di bi njabootu Seydi Hadji rëy si yow rëy bi jullit yépp rëy si yow ndax si weeru koor da naan wax ni weeru koor suñu dee waxtaan wax waxtaane lu nga xam ne nii ñëpp siy gis seen bopp man yi rëy bi nga xam ne itam képp kuy sénégalais réussir waaw moo tax nga diree ñëw ba fii ñu lay siy sant waaye li tax nga def ko itam da nga bëgg rek ñu texe man awma am naa yàqin ni at yi nga am si tariqa bi ak ñi la meññ ak liggéey bi nga liggéeyal sa bopp waaw koo xool mu texe koo jiite mu texe koo gis mu texe te sauvé nu rekk ñu am texe boobu rekk moo tax nga ñëw ñu xool la nga xool ñun ñépp ñu texe waaw te sa maam si Hajj Malik dafa jël xadiisul quds malaayikullahi yàlla dafa am ay malaayika yu ma xam ni bés bu nekk leen rek moo leen itteel di wër àdduna bi di seet fan la ñuy tuddee baatu yàlla bu tedd ba wala fan la ñuy tuddee turu yonentam bu tedd bi suñu ñëwee toog nekk ci biir nit ñi dañuy samp seen laaf ci suuf si laaf bi dem ba asamaan ñu iir képp ko nga xam ne kii toog na ci tant bi su doon ba Chine ñooñu loolu la ñuy def mu mel na jataay bi dugg na ci xadara boobu te awma sikk si la waaw suñu demee yiw bi nga xam ni am nan ko si tànt bi du duñu ko yóbbaale dañ koy séddale nit ñi bala ñuy dem suñ demee rendre compte yàlla waaw mu ni ko fu ngeen jóge mu ni ko ña nga jóge Fass ñan ñoo fa nekkoon mu ni njobootu si Hajj Malik njobootu jullit yépp ña nga fa teewoon est-ce que amul lu ñu ñaan ñu ne ah kañ mun leen lan la mun leen doon bëgg ñoom ñëpp ñu dugg àjjana mun leen ñoom ñëpp dugg nañu àjjana kooku xadis la mu ni amul lu nu ragal mu ni ko ñoom ñëpp li nu ragal rek moo ñu dugg safara boo wax leen ñoom ñëpp texe nañu ci diggu safara mu leen mission accomplie ñu ni ko mission accomplie bi ñu demee buy dem mu am ku dellu si waat ni ko yàlla dafa am ku nu jaaxal ku nekk si mbooloo mi ñu ni ko kan la mu dafa am benn waay bu nga xam ne bi benn njaayeen bu nga xam ne bi dugg na si mbooloo mi sa tur yu tedd yu yóbbu ko fa woon waaye al aldu kalpe ñi ñi dagg seen boos jël xaalis ba sa nekk moo ko fa yóbbu woon ñu yàlla loolu kan mooy àtteen mu ni comme ñu fa nekk sa biir tànt ba texe na moom tam texe na ku romb texe ñoom ñi su fu nu romboon ñuy baalu yàlla ñuy ñuy ñuy yàlla sax suñu rombee ñaan wala nuyu ñépp texe na te sa maam dafa xam ne xadis bi garaaw na garaaw moo xam ne bi mu ni ku weddi waaw ku weddi musiba dal na la sama saaj Malik ma ko wax kon nag li may wax nii fii ku fi teew texe na dafa am fu wóor xam ne fii fa laa sukkandikoo du la sa maam si xaaj Malik jël ko woy ko ba pare ne nag ku weddi torox kon nag yàlla na nu ñu ñëw fi nag góor gi liñ daan wax rek noonu lay wax ñun sa ay njaboot noonu dana bëgg rek nga nangul na njaboot jooju waaw amuñu dara lu ñuy def fii amuñu dara lu nuy wax fii dañu war organiser ba mu rafet nga dugg ñëw wax ñu déglu la loolu rek lañ fi am ndax lii yëpp yaa ko lii yëpp sa bàyyee ko lii yëpp sa maama ko kon ñu bëgg rek jaayanteeg yow liñ naan wax at mu nekk di ko def at mu nekk moo yeesal suñu jaayanteeg yow yeesal nekk bi ñu nekk njaboot si yow yeesal suñu engagement si yow waaw ah, bëgg nag am kilifa te duñ ko wuti feneen su dul si yow duñ ko wuti feneen ku dul si yéen waaw ah, di nettali rek eh, eh, li ngay faral di nettali eh, bambara ba sa mbokk bambara ba engagé woon. ñu ñëw laaj ko ni que dangay rengager mu ni waaw ñu ni que ñaata at mu ni ba àddina yi tukki ñu ni que quartier kenn du si engagé ba àddina yi tukki waxal ñaata at mu ni tant que ceebu baay buur jeexagul rengagé naa yow tam góor gi tant seen yiw jeexul ñun engagé nañu seen gannaaw te seen yiw du jeex mu fi nekk àjjana seen yiw du jeex seen Hajj Malik dafa wax ni yowmal qiyaam su yonent bi taxawee Cheikh taxaw El Hadj Omar Foutiyou taxaw man Malik su ma agsee ñépp xam ni agsi naa kon nag yàlla na yàlla boole si njaboot jooju di leen ndokkeel nag yéen yépp di leen baalu àq di leen baal àq di wax li sëñ Mansour daan wax rek suñu koor gi yàlla nu ko yàlla nongul te bañ nu ko nongul waaw nee na nu ko yàlla nongul te bañ ko nongul yàlla nu yàlla nongul ñu dugal suñu poche yàlla bu nu jaamu yàlla ba pare mu jël ko faye ka keneen nangu ko jox ko keneen kon nag yàlla nu ko yàlla nongul te bañ ñu ko nangul yu ñu leen di ziyaara di ñaan yàlla mu barkeel bépp yiw bu nga xam ne bi séddale na ko ci bés bi ñi daje ci tànt bi yàlla bu leen ci kenn ëppale ñu bëgg nag am kelif teef te yaay suñu kelif te duñ ko wicc ci keneen soxlawuñu meewu keneen waaw fi ñun meneen meew day forox si ñun di ñaan yàlla mu guddal sa fan nga yàgg noo tette yàgg noo jiite yàgg noo difi yàgg noo wéttali bi jaa nabil Mustafa sallallahu alayhi wa di nuyu ñëpp nag di ziyaar ñëpp nag di wax rekk ni thème bi ñu la ñaanoon nga traité ka te jóge ci benn téere bu sam Pape xalif bi defoon en 1961 majhulul ummatil islamia aw ummati sanahania sa Pape Cheikh dafa seetlu nii sa maam Seydi Hadji Malick dafa siiw ba pare ñu réere ko Seydi Hadji Malick siiw na ñépp a ko xam mais ñépp a il est méconnu mais connu méconnu mais MAIS connu français yu wóor laa leen di làkk méconnu mais connu MAIS sam Pape Cheikh seetlu ni nit ku ñuul xamul nu muy nu muy soppi mu wax ko nee na nit ku ñuul xamul nu muy yëkkatee kilifa mu wax ko waaye mu wax ni min alxatai in lam yakun min alxatari taxaafula taxaafulu alkuttaabi almucaasirina an tazwidi alshubaan bi macrifati salafihim alsaalix alladi aqaama lahum addiin wa taraka lahum alturaasu alkarim alladi fihi majduhum wa najaaxuhum wa fihi sacaadatuhum alxaali sa pap Cheikh bu rëy la wala danger bu mag la jàngale mi ngi mel ne xale yi tey toog fii alkutab mooy daara alquran yi ba daara alquran ak école bu mu mënti nekk ak géew bu mu mënti nekk ñu négliger ñu sàggane di fàttali xale yi ñan ñooy seen ay maam yu sell moo tax ñu tudde tey jataay bi sa maam Habib moom moo gën placé pour wax kan mooy sama maam Habib ak li mu seq ak mag ñi ndax ku fekkee démb yaa mën nettali démb sama Pape Cheikh wax ni en 1961 ni daara alquran yi suñu négligé di fàttali nit ñi seen ay maam yu sell yi ak liggéey bi ñuy liggéey xam ni alquran bii ñuy jàng tey ñoom ñoo ko liggéey ba mu rafet ñu teg ko seen loxo diine ji nga xam ni seen màgg si lay jóge seen texe ëllëg si leen jóge seen tedd nga itam si lay jóge sam Pape Cheikh nee na erreur la ñu négliger la comme xale yaa ngi nii jàng-jàng bu rafet bi ñu jàng ñëw ñëw fàttali leen kan mooy sa maam sëñ Hajj Malick fàttali leen kan mooy sa maam sëñ Touba fàttali leen mag ñi nga xam ne ñoo fi jaar ñépp ñu xam ni loo am lu nekk na nga fexe ba gëstu li la ka may lan la soo ko def rek sa ngor des na te lii ñu am tey lii lii lii dafa am ñu ko xeex dafa am ñu ko liggéey ba mu ñëw fii kon nag ñu ni woon tey soo ñëwee ñu ñaan la si téere sëñ Cheikh boobu ak euh, lim si njàmbaas ñu waxtaan si waxtaan lu gàtt xam na ni yaram wi mayu la ka luñ si jëlee rek yóbbu ko sa teew bi nga teew fii euh, ñu xool nga xool dafa dafa bare lool si ñu yàgg fi ñëw di fi yàgg fekk di leen ndokkeel si fekke woon bi ak fekkewaat bi di ñaan yàlla fekke fekkewaataat bu bare bare bare waaw ma bëggoon rekk am na ñu nga xam ni teew nañu te Sidi Ahmed jotulee woon tudd ma nuyu rek ki nga xam ne kii mooy suñu njaati yi mooy bunt bi mooy euh, sunu waajur Cheikh jàll bi nga xam ni mooy euh, chef de quartier bi waaw di nuyu euh, Ndiogu Ndong ki nga xam ni mooy sous-préfet Ndong sous-préfet de Dakar et di nuyu si Djibi Diallo sous-préfet Jaraaf Paye délégation la ministre Koudia Mbaye ministre de l'urbanisme ñu ngi leen sant euh, di leen gërëm bu baax ak teraanga bi nga xam ne indi ngeen ko di nuyu Ousmane Ndoye qui la tête de liste euh, de Taxawu Dakar qui vient de gagner les élections à fas di di di kontaan lool si teewaayam di nuyu euh, Souleymane Ndiaye bu Grand Moulin Souleymane Gaye bu Dubaï Port di nuyu Cheikh Bassirou Sarr ancien ministre Mamadou Taha Samb tête de liste ALB ba Bargny qui vient également de gagner les élections di nuyu Besuniak département de Pikine di délégation dirigée par Magay Seck Ndiaye et Moussa Kanouté Ndeye avec euh, Oustaz Watt euh, di nuyu Mame Ousmane Samb président euh, de COSCAS di nuyu El Hadj Ousmane Thiam conseil régional de Dakar di nuyu les mouvements des jeunes Tidjane di nuyu euh, bureau fédéral di nuyu euh, bureau euh, jumelage bi di nuyu jaraaf Abdou Diop bu yeen di nuyu itam une délégation bu nga xam ne bi fonk nan ka Daara Xaari Amar Fall ñoom ñëpp ñëw nañu teew nañu tey représenté par El Hadj Maodo ñooñu daal góor gi waaw El Hadj Badj itam yebal na fi délégation ba am solo ak Anta bu waaw directrice SONES ak Binta sambu Ba ancienne ministre ñooñu daal góor gi bëgg nu gàttan parce que xam na ni yaram yi dafa sutoon te amoon nañu yéene wax lu bare bare nag waaye yoon yamul si benn si njobootu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha bi fi teew yëpp ak njobootu sëñ Babacar yëpp ak njobootu Seydi Hadji Malick te kii di suñu waajur ñu ngi lay sant di la di ñaan yàlla mu defal nu tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi